salaamaaleykum Sénégal man Viviane maa leen di nuyu bu baax a baax a baax euh, boo leen gisee nag ma def vidéo bi tey euh, parce que feebar bi ñu naan coronavirus dafa gën a dugg ci suñu réew euh, loolu moo tax concert bi nga xam ne moom laa doon def le 14 Rufisque ma reporté ko ba yàlla def jàmm. tournée bi buñ koy commencé waat ba tey tëngéej la ñuy njëkkee. ñu jot a jënd seen billet ba pare nañ ko garde bu baax parce que buñ fay dellu si waat moom la ñuy duggee. di remercier nag ñi ci jot a jàpp ñëpp ah, euh, di commencer ci maire Rufisque ah, ak sunu tata yi sunu tonton yi sunu xarit yi waa ci yëpp ndax gis naa euh, ni ñu mobiliser woon ñëw ñoom ñëpp pare pour ñëw jàkkaarloo seen artiste mu woyal leen mais nag seen santé moo ñu gën a lépp euh, santé fans yi santé ñi nga xamante ni ñooy ñëw pour taxaw pour seetaan si moo ñu gënal kon nag puusaat nañ date bi ba beneen yoon donc maa ngi ñaanal ñëpp am jàmm yàlla na jàmm sax Sénégal